daal vingt huit oto ñuy roñ militants yi Pastef yi indi ñuy wote pour moom ay militants am lay roñ <laughs> merci Modou Dieng. Euh, en deux mille dix-sept président Sall amoon na cent trente six députés. Abdoulaye Wade amoon na fi cent vingt députés. kon score bi Pastef am du lu bees. yéen a ko gisandoo gis ngeen yambar mi ca télé Dofia euh, ndeysaan xam nga télé bi télé yi dañuy xool ñi nga xam ne en lan jàppal président Sonko mais bu doon xam-xam ak chronique analyse bu tegu ci yoon ci xam-xam ak pertinence du ngeen toog ci télé yi di wax mais damaa bëgg ngeen xam ne ni sénégalais yi joxe politiciens yi leçon ñun noonu lañ leen di joxe leçon yéen ñi toog ci télé yi di fen nee na victoire Pastef bi du lu bees ñun lu ñu doyee lu bees ñun victoire lañ bëggoon am nañ ko a ah? mi ngi mel ne Balla Gaye daan yëkkati ngaan ko jël bi mu ko daan lu bees lu muy doon Balla lu muy doyee jël bu bees moom ab victoire la bëggoon am na ko ma ngay defal ay ñooñam quoi ñi ñi nga xam ne bu ñu wéetee xaru ñooñu lay defal nee na nee na lay defal nee na victoire Pastef bi lu bees ñun lu ñu doyee lu bees mu ne Abdoulaye Wade amoon na ko fi Macky Sall amoon na ko fi yéen ñoo ñooy seen référence di yéen Macky Sall lay seen baay moom mooy seen référence. Macky Sall 130 députés mune ne Abdoulaye Wade 2017 amona 100 2000 xaw lan 110 100 120 députés ñun ñu am 131 ah waaw duñ sant yalla yeen bu ngeen sañon ñun la Macky Sall amoon ñun duñ ko am comme que nak Macky Sall la fi jëlé Abdoulaye Wade hein ñu jëlé fi Macky Sall kon ba ñu la Macky Sall yoroon victoire ah, ensemble ba nam ko gagné won ñun ba ñu victoire bobu ñun ñu victoire bu bëss ñun victoire ndam lañ bëggoon am nañ ndam su ngeen yoree toog pour attaqual ko ñu toog raxas suñu victoire ba mu set ñun lu ñu doy victoire ba màggat ak bu fi bu fi xewoon ak bu fi xewut ak bu fi amoon ak bu fi amut ñun victoire lañ bëggoon am nañ te ñun ñëpp xam nañ ne ni ñu gañee nit mësu koo gañee nii waa léegi Abdoulaye Wade ba mu koy gañee di am cent vingt député opposition bi chef de l' opposition loolu la amoon est ce que amoon na sept est-ce que chef de l'opposition amoon na sept député est-ce que seen ngan di maami coalition bi Abdoulaye Wade ba mu koy gañee est-ce que ñem gañe woon ñaari président ngi ca est que ñaari coalition ba ñaari président nga ca est-ce que ñaari ancien premier ministre nga ca ah est-ce que ñaari ancien premier ministre nga ca Abdoulaye bi muy gañee cent vingt yi yéen day leen analyse yi yaakaar yéen a mag nit ñi ñun victoire bii ñu gañee dañoo fekk coalition bi gën a rëy ci Sénégal ñu jàggati ku ba biir bu weex dóor ci suuf mu am seize députés boo xay ne ñaari président nga ca biir ñaari ancien ministre premier ministre nga ca biir ay président assemblée nationale nga ca biir ñu jàggate ba seen biir weex door ci suuf Macky Sall bi muy gagné cent trente yi ñaari ancien président nekkuñ ci coalition ba ba mu gagné ñaari ancien premier ministre nekkuñ ci coalition ba mu gagné ñaari ancien ministre euh, président euh, assemblée nekkuñ ci coalition ba mu gagné ñun dañoo fekk coalition mboolem parti yi masa am Sénégal gañe réew mi parti yooyu ñoo booloo ak seeni ministre ak seen i directeur ak seen lépp ñu jàggat leen dóor ba ci suuf Ablaye Wade ba muy gañe ak Macky Sall euh, victoire bii ñu am chef de l' opposition amul woon sept député coalition boobu dafa gënoon rëy amul woon seize député ñun rek ñoo fi jàpp ay coalition ba dajale leen ba mat bi wex ñu jàggati leen dóor ci suuf waaw nga xam ne ñoom ñëpp buñ leen séddalee amuñu 30 député kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a gañe xam leen loolu xam leen ne da ngeen a boole coalition boo xam ne ñaari ancien président nga ci ñaari ancien premier ministre nga ci noonu naa doon ñett sax kenn ka daa gaañu noonu naa doon ñett kenn kaa gaañu ak ñaari ancien président assemblée nationale ngeen ak seen i a seeni seen i PCA ngeen boole yëkkati ba seen i biir weex ngeen dóor ci suuf ñooñu ngeen gañe démb ak bërki démb ngeen fekk ay ancien ministre yu beru ne ak i ancien directeur ngeen jàggati coalition bobu ba ca kaw ngeen door ci souf ngeen fekkat coalition bo xamne ay mbeut fa dajé en coalition mbeut ye ya moy ñom bat lami jass ancien maire Dakar maire Dakar ba ca nek ancien maire Dakar moy bat lami jass ñom ñëpp nga jàggate bobu door ci souf ablay Wade def ko fi mak sal def ko fi bo xewé su ndam ni ñun ndaw nam su ndam ni nga nan ablay Wade du fi lu bes ñun lu ñu doyee lu bees lu ñoo soxla lu bes yow lii ngay wax mooy lu beesut nit ñi soxlawuñ ndam li du lu bees da xam nga lu ñu doon bañ ñun gañe wuñ te yow loolu nga doon séntu duñ gañe yow sa ku ñu génnee sa chronique yi barki démb ak barkaat démb lii nga ko da ngaa war a toog ci ndëlbéen nga naan ne Pastef dana gañe waaye na leen ni muy gañe du lu bees. jàggat leen ñun chroniqueurs yeeg journalistes yeeg mbojo mbojo yu baree bare ci defet bi lañ bokk barke Seydina Mohamed defet Touba ba nag la ko tax a neex mooy. fenkat ya taxawoon di fenal waxtu moo rit yëpp dañ a boole ca ca ca mut jang nee na 28 kaar la joxe ñuy roñ subaa ngoon guddeeg bëccëg jërëjëfa mut jang ñu ngi lay sant ci loolu ndax bu du woon yow suñu militant yu bari du watey waa Pastef reneen waa APR am na côté boo xam ne meren tooñ nan ma ci ndax waa APR dañ daa yóbbu ay oto ci koñ yi ñuy yëpp patriotes yi indi ñuy wate ren nag waa APR defuñ loolu loolu na wax dëgg yàlla wur leen ko na def ngeen a na ngeen daan def waaw loolu noonu waroon ngeen def na ngeen daan def ñun suñu ennemi ñooñu daan indil suñuy suñuy militant ñuy ñëw di watu di wate ndax xam nga ne mu jég mi daal vingt huit oto ñuy roñ militant yi Pastef yi indi ñuy wate pour moom ay militant am lay roñ <laughs> merci mu jég